filangaari baay daam sama paat sama paat sama paat filangaari baay daam si Modou Kara Sylla mi ngi koy nuyoo nee na bu baax fi lool te wér ba nga bëgg a liggéeyal maam Thierno ak Serigne Touba nga liggéey ko na ko bëggee. Mm-hmm. ak képp ku la ko yéene. Mm-hmm. nee mi ngi sant bu baax mm-hmm. ci ndigal li nga xamee ni. jël na ko jë sañ Pathé Sylla bi nga xam ne mooy waajuram maamam. ba ci sëñ Cheikh Sall diwaan bi waajuram. mu ko doon indi fii ci kër borom Daaru Muxti. comme accès ci moom. mu yan yan boobee ànd ko ak taalibe yëpp. di ko indi fii sa kanam muy ñaan loolu nga ñaan ko mu yàgg lool. nee nag mi ngi sant bu baax a baax. di la sant bu baax. Hmm. ndax li nga xamee ni moom la jëf di ko indi fii ci kër ba Daaru Musti hmm. saa yi bu ne moo ngi muy àndal nee na ngi sàkk nga ñaanal leen. Hmm. ba ni mu ko bëggee. mu mën a ko defee noonu di ko indi fii ci yow. nee na lii mu fi indi. asakay yéeneem la. nee na nga ñaanal ko moom ak ñi mu àndal muy taalibe ak soppe yi ba li mu bëgg a liggéey Serigne Touba ak borom Daaru Musti mu liggéeyee ko noonu ne lu kawe njorta te ànd koog yow mu yàgg lool nee na lii nga xam ne indi ko fi nee na ngi koy xeeb bu baax asaka yéenam la nee na lii nga xam ne moo te mbas mi am ci àdduna si nee na mi ngi ñaan nga ñaanal ko mu mucc ci mbokk àddu set te yàlla jëli ko fi tey xew topp ci ak wér nee na mi ngi sant bu baax Mbàkke amiin mi ngi ànd nag ak nijaayam nijaay kii nijaayam la Habib Diop hmm. nijaayam la hmm. moom bi ko jàppale ci liggéey bi la moo ñim nekkal bitim réew hmm. waaw di taalibe bi xaritam kii bàyyi boole njaay la moom it ci magi taalibe la bokk nee nga ñaanal baax ak ñaan taalibe yépp hmm. nee mi sant baax hmm. eh, man nag doomi libaas njaay ànd nag sëñ Moustapha si nag mii di ab taawam hmm. mu ñëw doon jébb si liggéey bi nee mi ngi sant bu baax yaa ngi bi mi ngi bi ñu ñu ndaw mu sant bu baax mune xolam set na bu baax baax man ngi ba léegi ni ko sëñ bi daa defee daa jël ndab di ko indi fi da nga daa boot da nga dafa boot ndab da ko daa toggee na ko daa yenoo taadir yi kaadir yi ko daan toggee. kaadir yi ko daan toggee. noonu ko daan yenoo indi. nee na boo noonu ba léegi noonu noonu lii tamit noonu la ko defee nii. noonu lañ koy nangoo it. nee na jërëjëf. yàlla nañ ko yàgg a def. te dañ gën koo man yàlla musal ñu. lépp luy dem rek. ak tey taalibe yi. ఇంకుబుగరిగి అల్లెకన్నాను త్వరకాల నేను సత్తు బాగా చేయడం చెప్పు నేను చేయడం చెప్పు అవి I mean, I mean, sama paata sama paata sama paata oo oo oo oo ci lingaari baay daam